Ousmane li gën a garaaw mooy léegi sénégalais yi pour ñoom wax Ousmane Sonko jarul dóor sa doom et quand même nous on a besoin d'une république avec un premier ministre dont la parole est crédible. mais mais mais Yoro bu sénégalais yi banaliser les propos du premier ministre. Euh, le Sénégal compte douze ou treize premiers ministres. ay mm-hmm. euh, kilifa ñu mag kilifa. non non non euh, doguma la mais boo gise ah, Habib Thiam. Habib Thiam Mamadou Lamine Loum Abdou Mbaye Idrissa Seck Macky Sall. Euh, Cheikh Agibou Soumaré Souleymane Ndéné Ndiaye euh, Mamadou Dia euh, sous Senghor alors su Macky Sall Abdou Mbaye Aminata Touré feu bun Abdallah Dionne yàlla na ko yàlla yërëm mhm. Amadou Ba ah, cest dire mosuma gis dans l'histoire politique du pays ay kilifa un chef du gouvernement taxaw di traiter des citoyens de délinquants <laughs> mais wax naa ko wax naa ko wax naa ko dans mon dernier article xam nga boo xam nga du jamais vu boo nekkee moo tax waruñu banaliser ces propos là non xam nga boo nekkee ENA li ñu jëkk a jàngal l'état c'est le prestige et il n'y a pas de prestige sans distance malheureusement le premier ministre que nous actuel est incapable de se hisser à la grandeur de sa fonction de ses fonctions c'est pourquoi on dit l'État anoblit mais l'État ne va pas l'anoblir comment un premier ministre peut accuser nommément le président du conseil constitutionnel de corruption comment le premier peut dire que oui il y a qui sont morts on les a jetés. le ministre de la justice. ministre de la justice euh, bi ñu naan oui c'est un homme rigoureux. Ah euh, voilà euh, euh, ininfluençable mu ne ministre de la justice daf ko indil vidéo ne ko kii booyu Pastef la mu ne ko defal sa defal sa liggéey. il fait tomber le mythe. bi ma bi ma mujjee fii le 2 avril lu ma la waxoon assise amul njariñ. il fait tomber le mythe. bi ma mujjee fii le 2 avril lu ma la waxoon assise c'est une perte man dama yaakaar ne sax moo ko tey. mais ça ça mais ça. man dama yaakaar ne sax moo ko tey non ko non non. mais si moo ko tey. assise yi li ma la wax xam nga assise dama ñëw fii ne la assise c'est une perte de temps assise yi c'est une perte de temps mais Ousmane Sonko wane na ko. bu dee le premier mi bu dee le ministre de la justice l'appelle et ça veut dire que donc. pour un militant de Pastef qui a insulté un magistrat. mais ce qui est ce qui est plus grave ça veut dire que donc bu dee ko woo yónnee ko vidéo donc ça veut la justice et donc ça veut dire que donc ñoom fii ak cinq ans yi jeex aussi longtemps que le premier ministre et le ministre de la justice en fonction mais lu ñu def ils vont décrédibiliser la justice parce que lu ñu mënti def enquête lu ñu mënti def audit lu ñu mënti def poursuite les gens vont dire que c'est le premier ministre qui décide en en, français comme moi je suis un de Senghor en bon français loolu lañ doon wax la moom lañ doon wax la la lettre de cachet ca dit que le roi avait le pouvoir s'il voulait mettre quelqu'un en prison de juste de faire une lettre de cachet et puis on te met autrement en prison et ça nous renvoie François Ier quand François Ier dit tel est mon bon plaisir ça devenait la loi aujourd'hui le bon plaisir de monsieur Ousmane Sonko semble être devenu la loi de façon le ministre de la justice qui a été un magistrat émérite Ousmane Sonko l'a coulé parce que même dans l'intérêt de Pastef dans l'intérêt du régime le ministre de la Justice a démissionner parce que après loo fi def c'est frappé de ce qu'on appelle les mécanismes de soupçon le soupçon est établi demain rapport bi di ñuy wax koo ci jàpp dañ naan Ousmane Sonko wax nga jàpp ko et la justice comme on dit souvent c'est le seul service de l'État qui porte le nom d'une vertu. C'est pour cela le président de la République ressent le besoin le jour de la Tabaski de dire ku ñu fi jàpp na jàpp na justice moo ko jàpp. ah bon du politique oui du politique du dara. Bon. Le président est sorti pour rassurer. Bon, comme c'est comme c'est comme c'est Diomaye premier roi d'Angleterre. <laughs>